يعني انت على محمد صلى الله عليه وسلم وحنا نتي حديث بو خامتني نيونا تي ترمذي هناك حديث بو خامني مننا واخنا جامونو بي ني اكтуаليتي لا باسكو دا فا ام بن ماما ما غيس جيجين ني ما خام تي سيمستر تي نيوم نياب دا ني داف ستاتو بن ايميسيون لا بو بن خاله بو جيجين ген نون دي واخ جيكرم خينا نوم كاي تريتي اك يو مل نون لا غروه بو فكاني نيت كي دا فا نيك تي ميليو بو خامتني da ngay dem ay soirée da ngay dem ay bal da ngay dugg ci boîte de nuit danga da nga dugg da nga nekk ci showbiz bi daal ci gàttal nga gis koo xamante ne ci millier boobu noonu la nekk mu takk la continuer di génn di doxi guddi wala di la maltraité loolu laa wax dara du ci lu yéeme dara lu yéeme amu ci parce que problème bi mooy li la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn loo moom nga deful yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam kenn du ko teggi loolu nañ ci bàyyi xel kenn du ko teggi ku ko teggi rek yàlla wax na ci alquran mu ne wal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim na moytu ñi nga xamante ne dañuy won ginnaaw waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fitna bu rëy nar na leen a dal wala mbugal bu tar yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريضة Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ñëwee ci yéen nit koo xamante ne gërëm ngeen diineem gis ngeen ne moo ngi pratiquer diineem yamu ci de mu ne gërëm ngeen jikkoom ndax nit ki mën na nekk kuy pratiquer diine mais fekk jikko bi mooy loolu loolu bëri na loolu ku xool sax da nga koy gis waaye nag yow xool ko ci jikko xool ko ci diine Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ñaar yëpp motee moom bul xool leneen fexeel No seye ak koku wala nu ngeen ko maye sen do bu fa yemon sax ñu xawa am maslaha mais dafa ne bu ngeen ko deful fitna bu rëy ak yakute gu beuri di ngeen ko gis ci kaw suuf moy yi ni rek manam nit ki yow li ngay joytu ci nit ki naka jek lolu moy nit ki parce que milieu bi ngeen xamanté ak façon bi nga ko xamee dem na ba léegi nit ñi ñu ci mariage lu alal est ce que semai mëna def samay shopping chaque semaine est ce que dina mëna am ben range rover est-ce que dinaa mën a am benn appartement boo xamante ni c'est à cinq cent mille jëm kaw loolu la ñuy xool du coup dañoo wàcc yoon bi ñu waroon a xoolee da gis tamit ñoo xamante ni dañoo yàgg ci relation te relation yooyu hors mariage la day fekk ni def nañ lu xaraam lu bëri après ñu ne nañ ko daganal borom dafay foog ne bàkkaatu démb yi du ko topp déedéet daf lay topp li lay dimbali mooy fekk tuub ngeen yéen ñaan ñëpp ci bàkkaat yi ngeen doon def parce que nit ki fii ak takkoo ko amoo droit wéet ak moom amoo droit tamit ngay am benn contact physique ak moom yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel nit ñi bu fekkee ne def ngeen li leen yenent bi sallallahu alayhi wa sallam digal ba pare ba pare nag mu demee ni kii ku jigéen kii doon expliqué bu boobaa mën ngeen victimiser wu waaye nag mënul nekk nga nekk ci milieu boo xamante ni yow pratiqué wu dara ci sa lislaam ñi nga fay fekk aussi pratiqué wuñu dara ci seen lislaam ba pare après nit ki am comportement ci yow ngay ngay jooy mënul nekk nañ dellu xam ne ay jullit lañ nañu déglu te jàng jàngale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfee ko yàlla nañu yàlla suturaal te yàlla def jàmm ci diggante yëpp bi jaaxe rasulillah